des jeunes est un véritable casse dans la commune de Diourbel. La conduite de moto Jakarta constitue une alternative à la lutte contre le chômage des jeunes. daara ne woon damaa gën daara rek xam nga commencé liggéey ma ko bu yàgg suñu kenn seen toog mais bañ a toog di xaar moo tax ma jël Jakarta en wutaale lu ma satisfaire samay besoins ak samay rakk aussi laa fa à peine revenu dans son lieu de stationnement ce conducteur de moto Jakarta ancien pensionnaire d'une école coranique Amadou revient sur la pénibilité du métier. moto moom boo dawee ba su boo am tuuti moto bi day lekk lii leen ñu jàpp la. lii mu lii lii lii nga di jéego mu nga dajale ci xaalis dafa xaw a jafe parce que course yi baaxul te mooy loolu.

bëgg naa lu ma am sama aduna moo tax ma jéem a jaayante ba xool sama bopp moo jëndee Jakarta ba sama plusieurs cas d' accidents de circulation impliquant de conducteurs de moto Jakarta sont Jurbel. Selon Amadou conducteur de Jakarta, l'état défectueux des axes routiers est l'une des principales causes de ces accidents. problème yi quoi parce que tali yooyu noonu ni ñu noonu des fois ñëw ci bi war a jàll oto bi di moytu pax mi mu moytu ba ñuy yàqule moom moo ko gënal moom mu yëngu la quoi waaw mooy loolu mooy waral soog yu bëri ndax dañuy moytu kàmm ñoo fekkale fi nga taxaw ñu yëngu la après bu ñëwee moom bu sàppoon ñëwee ñu ne jakarta jakarta man la ñu jël sa moto yóbbu police boo ñëwee yaay fayaat risques qu'endurent les conducteurs de moto Jakarta, Amadou espère ainsi laisser tomber un jour ce business. non non Jakarta. képp ko gis mu koy dawal yàgg ci rek bàyyi lay parce que yow mi ci nekk gan mën nga mën nga bañ a xam ci nekk mais boo ci yàggee rek bàyyi nga ñaan quoi parce que am na risque te amul xaalis te boo ko bàyyee du am leneen kon foog nga jàpp ci ba gis leneen. Si certains ont choisi le métier de conducteur de moto Jakarta, d'autres ont préféré se tourner vers des métiers plus prometteurs.